Click. Canacho. Free tempo. Ah. Old time a good boy fan got taller. na bënga lirig yi ba farax na toll wax ci gën di bëri ku ne sa protocole ku jaaxaan saw balaa kenn too yow nga lóor bu ñu boolee bokkuma ci kenn ak ñoom effacé leen ñoom duñu xeer comme éponge telem ko lu kay di ñëw de à wood low coming el pistolero eh am na ñu may laaj fan nga toj te bëri na yu ma bàcc ay bopp da nga dof déggoo nem bi fly fu ne sa beste M6 gisatuñ ko dañ a à journée daacu ne amul protection ni taatu nen na naat ni meewa ko feregul comme liir ci wen naan sa deret moo gën a yombu naan ka souvin may bàkku tey ndax démb dama doon tàccu rek caaxaan jeex sentu asamaan jarul bu xënte foo taxaw gis foog xaritu tàkk nder benk sa ay balaa nga joto sib fekk nga dee crime la jàlle la sans doute sargal la dal si sa sa di il est trop fort ce gars la Nigga, I got the key, key. Ah. Free tempo. Uh. Free. Déedéet duma baale les gueules vont flammer restez sur l'allée eh, eh, dem naa bu yàgg bàyyi leen eh, lii du son style rek tempo free ngay get oh, let me keep my way cat nuuri fee ci géej gi ba tooy ku tëb dal ci taal noo def di nga tëmbaat nga jooy am na ñu tàkk te bu dul woon man dara du booy na nga jël sa ñamu bët ndax bu dem man rek rongoñ du toog fi xam nga baax na kele bokkul ak kenn fi tore fay yu bëri mo sa si jël benn fils projet wu il faut bi amul avenir du ñëpp a dawal loxo mi moo tax du tenu eh benn nga ma woon ma woon sa ndey tu restes que la maison moo tax di nga dégg wu vide seeni compte I poop, eh. G-Way must sit in bed or casting a scoop, eh. Homie, no scoop, homie, no, eh. Homie, no scoop, kill a thought, just in camp. Homie, no scoop, homie, no, eh. Homie, no scoop, metal casting a scoop.